واجبا دايلا ويا ما خسر الانس والجنين رسول الله اليكم واجبا دايلا ويا ما maa ngi lay ziar. ñu ngi leen di ñu leen di delloo ziar laay Momadou. tey bëgg nga dafa mel ni kii tey. jamono heure bi nga xamante ni moom mooy heure bu am solo bi muy heure yoor yor bi ñu ci bari ci taal bi moom lañ doon xaar defe naa ne moment boobu tam nekk na moment bu leen manqué woon tey mu nekkoon ab yëg-yëg bu doy waar. waaw ginnaaw ba ñu santee yàlla julli ci yonent bii di Seydina Limaamul Mahdi alayhi salaatu wasalaam yàlla dañ ko ameel cant ba pare amalaat ko cant moom yàlla ndax ku fekkee démb tey jii boo taxawee fii di delloo santaat sa borom ñaari appareil la woon benn fii benn fële bàyyi Sidi Thiaw toog ànd ak rakam sëb sëñ Ablaye Thiaw man mii di wax ak yow ñoom magum kër jong ma leen daan jox micro naan moo yëkkatil si kar si si kanam tey bu ñu demee ba ñun ñu ne ña nga ca ginnaaw. dañuy santaat yàlla woote bi nag woote bi jëmm ji woote ba mu koy woote amul ku ko gunge moom képp la woon mu génnee ca biir këram mbëkk buntam ñëw ci dun yi bi muy taxaw ci kaw montagne yi mbokkam yaa ngi taxaw waaye kenn gungewu ko moom képp la woon mu woote woote bi woote bi jëm ci yàlla sunu borom tabaaraka wa taala mu xamal leen ni moom ndawal yàlla la lu yàlla yónni ci kaw suuf si waaye nag la ca la ca nga xamante ni mooy kéemtaan ba ak lënt xol yi lëndëm ci bët yi mooy kii dee ñu suul ko ca Màkka mu taxawaat ci dér bu ñuul ni maay Muhammadu Rasulullah loolu mooy différence mooy wax ji mooy kéemtaan bi du yonent la wala du yonent loolu kenn wentu ko waaye géej gii xam na ba tey géej rombul géej a ngi ni di toj kër yi gaal yëpp topp na ba tey géej rek du weesu wu dëm yi nii. comme nga ba tey ndigal googu dégg ba tey. fa mu ko yemloo woon géej gi ba keroog àdduna yi jeex du ko paase waaye ñun ci sunu bopp nag ñun nit foofu mooy wax ja. nañu bàyyi naxaate bi ci réew mi ngir bëgg a wut ay taalibe jël doomi jàmbur def ko mbaam ci mbedd mi jël sa doom def ko noobul bàyyi laay loolu la fi dindi la sama waa kër samay waa kër ak waa kër ñeneen ñi ñoo yem ñun ñëpp nañu ànd jaamu yàlla waaye duma jël doomu jàmbur def ko mbaam jël doomu jàmbur def ko dof te loolu di jaamu yàlla lekk ñax jàmbur la bu yowmal xiyaamee balaa ngaa jéggi siraat di nga wax ak sunu boroom ndax mënuma ma jur sama doom ji ba ma koy ngénte sëriñ bi ñëwul ba mu nekkee ci biir yaay may jënd ordonnance sëriñ bi ñëwul sama doom dem ba ni léng nekk ponk lu magum jëmm sëriñ ñëw nang ko sama loxo ndax neex na si xol sëriñ si nañu bàyyi li ñuy def bàyyi doomi jàmbur yi ñu dellu seen kër ndey yi ak seen kër bàyyi doom day liggéeyal baayam doom li muy am baayam moo koy jox waaye sëriñ du ko ko jox doom na topp ca baayam bu ko baayam nee jërëjëf yàlla ni ko jërëjëf bu ko ndeyam ne jërëjëf am na àjjana naxaate bi ci réew mi nañu ko bàyyi xaw ma li ma ko tegam doo ko teg ni naxaate bi ci réew mi nañ ko baax te jàngal xale yi àdduna jàngal leen àdduna àdduna diine jàngale la Serif Ousseynou laay waxoon boo demee ci école bi yaa ngi jàng boo demee ci alxuraan ji yaa ngi jàng njàng mu ci ne day yeete waaye nag li ci ëpp importance mi ngi ci borom kër gi doom da nga koy wax demal toppi sa baay waaye doom kenn du ko demal bëreeg sa baay nañu bàyyi doomu jàmbur yi ñu dellu ci kër yi ñu raxasaat kër yi defaraat kër yi penc mi mën a baax bàyyi laay loolu la digle nee na kenn ku ne sëriñ nga. waxu leen ngeen ñëw fii di mbëkk ka indi ay addiya ka dof-doflu santaane wu ko de man mii damay jàng bu ma demee sama tut tànk yi ma téye leen ci di leen ci tettewaat parce que loolu lañ ma yere loolu lañ ma jàngal jànguma alxuraan lama ci si foraatu maa ko jàng après sama ginnaaw ngir julli jànguma al jànguma école diine ji man dama cee bokk man Seydina Issa Rouhou Lahi ca bayti Mamour la taawu sama baay tuddee ko Sambalaahi ba Baye moom moom laa tuddee Mamour mii Serigne Touba am naa turandoom Limaamu am naam turandoom Issa am naa am turandoom Baye Abdoulaye am naa turandoom sama baay sax tuddee wu ko doom nit la nga doon danga koy ŋëpp te téye ko naxul kenn jaamu leen yàlla li fi waaye nit woo la ni kaay nga jaamu jëlal sa dool dem liggéey ñëw jox ma nga daw topp ko adduna yow mal xiyaam day perte nga pert ki dafa ne jaamu leen yàlla bu leen defi noonu yéen seen bopp di ngeen ñu pare ñu dimbalante kon lu ñu ñaan waaye kon waxul indil leen ma. jàngul bindul ku gis sëriñ bu ni bàyyi teg ta àlliwa ci penkam sey Seydina Limaamu na ko wax ci àdduna sëriñ Touba jàng na Alaaji Malick jàng na nës nësal bi nañ ko bàyyi sëriñ Touba bu ñëwee jamono Seydina Limaamu moo tax woote bii moo indi Serigne Touba woote bii moo indi Alaaji Malick woote bii bàyyi laay woote bu wootewul woon Serigne Touba du ñëw Alaaji Malick du ñëw Serigne Touba du aju ku ñu ki ñu yónnee ngi nii sëriñ Touba aju ku ñu dénk la dañ koo dénk lan lañ ko dénk ruu yi lañ ko dénk. tàkkusaan ak tisbaar la yàlla bind ay ruwam ni Seex Ahmad Bamba yaa ma doy daal ko koy dénk waaye bi saw bis jëmm ji wootee la ànd ak ru ñëw wuy si moom Xaadimul Mustafa bàyyi ba ak baara maa mi dana Seex Mbàkke man yokk jumaay Touba maa njëkk a sottil bàyyi laan Mbàkke 30 mètres ci béton jële ko kër alaaji Mortala Ndiaye pàkk Lambaay la ko wax alaaji Mortala Ndiaye jox ma camion ma dem Ngunjaan carrière ba ci Jóob yóbbul ko sëñ Abdoulaye ca tàppaatu seng ni téye na ma ci kanamam ñetti sët Serigne Touba ngi toog mu ni ko kii dafa baax jëmm jooju mën naa wax turam Ablaye Mbeng la tudd mi ngi dëkk Géejawaay kii dafa baax damaa bëggoon mu doonu murit sëñ bi ni ko kii lan la mu ne ko ab laayeen la barke Seydina Limaamul Maadi yi maa ngi taxaw ci pencam Baay Laay ñetti yoon la ni sëñ bi ni bëri jóg toogaat ni ko billaahi wallaahi wa taalaahi li Serigne Touba bind ci Seydina Limaamu buñ ko génne woon kenn dootul gëm kenn ci àdduna mi ngi nii sama waxane maa ngi toog ci biir këram Ablaye Mbeng Géejawaay la dëkk di dem état li ñoo borom xaalis la chauffeuram laa woon voilà mi ngi di am jaay ay festo radiateur fii ci SIPS sëñ Ablaye li may wax balaa neex nga teg sa baaraam ci kaw li ngay wax ñu wax la ko ba ñu jógee ci xëqante boobu ba ñibbi si fii la ñëw këram ba julli suba jàng si ndini Seydina Issa ñëw taxaw ci biir néegam ñu ko man maay roowul xus si maay Seydi boo bëggee am mucc nag demal sama xabru nga ziyaare ma dem yoof ci sama doom baay Ablaye Thiaw nga siyaare ko booy gën ko jox benn kaamil ak juróom-ñaar fukki dërëm li may wax représentant daayira Laayeen bu Géejawaay Mbay Njaay moom laa jëliwul mu nekk seede maa ngi moom a ànd ak tànk dox loola ku xamul nag xamoo tooñul Laayeen tooñul kenn de Laayeen dafa defar àdduna Laayeen dafa defar àdduna ñi ngi añ ñi ngi reer ginaar yi taxaw nga ne kukur kukur kukur bu ñuy daw di ñëw dinañ la gis waaye bu pem mi baree dootuñu la gis pem mi rek la ñuy gis gaa yi nag gisatuñu bàyyi laay xéewal gi la ñu gis borom xéewal yaa ngi nii dafa ne ku weddi alku donte law lu yaay nga nit ak jinnee ci yem na ngeen ci yow sëriñ si nekk fii yëpp di fëgg seen i dënn kenn du ci fëgg sa dënn jëmee ko Seydina Limaamul Mahdi nañu bàyyi doomi jàmbur yi ñu dañ ñibbi seen i kër ñu jàngal leen alhamdulilahi rabil alamina ngeen baal maax ngeen baal كما خسر الإنس والجنين رسول الله إليكم أجبار